jërëjëf mbokk internet yi bëre ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fay mën a ne di ñaan yàlla yow mi seetaan sunu jataay bi yàlla la fekk jàmm te bu la fekkee ci jàmm yàlla na nga jariñoo suñu kàddu tey nag ñoom plaisir daje fii góor góor yàlla doomi daara nitu xam-xam waaye ñaankatu yàlla di Cheikh Mouhamadul Bachir Niass tey nag ñu fas yéene waxtaanee ak moom ci actualité ginnaaw bi mu bokkee ci dëkk bi ndax kër gi mu bokk mbooloo mi leen yàlla booleel day yell bu dara amee ci réew mi wala actualité ñu wax seen xalaat benn bi ci topp ñu fas yéene waxtaanee ñaan yàlla waaye dëgg dëgg ñaan yàlla te yow mi may déglu incha allah bu ñu tàmbalee ci émission bi di nga xam ne tey kii buur dara dëgg-dëgg jar naa dalal Cheikh Bachir ngi lay nuyu di la ziar di la tàggal la jox sa wàccuwaay bàyyi la nga nuyoog ñu lay saan sur bi pro ak Bour Gueweul waaw bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man wala yaa himmata cheikh axdur lana bi hada almaxdari wal taataf li bi nadaratin taati lana bi safar wa baad euh, buur maa ngi lay fayu nuyoo di leen ndokkeel ci déplacement bi ngeen déplacé ñëw seet suñu pour ñu waxtaanee réew mi waxtaanee mm-hmm. xam-xam mm-hmm. waxtaanee luy jëriñ euh, sénégalais yi waaye luy jëriñ adduna bi yëpp mhm. ñu ngi lay sant bu baax ci loolu di ñaan yàlla jàmm def ko ci Sénégal def ko ci àdduna bi yëpp alhamdulilah Cheikh Bachir ginnaaw bi la président mag Sall demee seeti kilifa gi alxalifatul amr Cheikh Mouhamadul Muntaka bokk na ci ay kàddoom sëriñ bi màggal gu ren gi mooy sama màggal gu mujj waaye dinaa veillé ci réew mi ba kenn du ko yàq wala kenn du ko taal ca ëllëg sa gis nañ ñu bàyyi lu toll ci cent prisonniers yoo xamante ni que mën nañu wax ni ay militants Pastef lañu waaye tey ki des ci kaso bi mooy Ousmane Sonko ginnaaw bi mu jotee ndigalul sëriñ bi dakkal loolu nga xam ne mooy grève de la faim ñu ci bari ñu ngi njort ni amaana dans les jours à venir mën nañu bàyyi ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. alhamdulilah li ma euh, sama xalaat ci loolu. Mm-hmm. ci Macky Sall ñu jëkkee jëkkee ko ci Macky Sall. Mm-hmm. Euh, li wax ci Touba. ci mm. kanam sëriñ bi yaakaar naa ne taarix dana ko bind. Mm-hmm. su dee fii ba mille vingt quatre février deux mille vingt quatre lu ne xañ na ci. Mm-hmm. censé af yi sax xañ na ci lu ne xañ na ci. Mm-hmm. te moom mi wax la mu wax. moom moo ko xam mm. ak lam namm ak lam dëxëñ sa biir wax ja mm. waaye nag sénégalais yi yëpp ngi xaar nan lay def ak waxam jooj mm-hmm. ci kanam xalifa bi ci kanam àdduna bi yëpp ñu ngi xaar nan lay def ak wax jooju noonu mm-hmm. ñi ngi xaar mu ñàkk bokk ci ay élection waaye tamit mu mm-hmm. bàyyi képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci élection yi. nga bokk nga bokk. Mhm. Euh, bañ laa indil benn jafe-jafe bañ a utit koo xam ne nii dafay wax ni man kii moom mu fi remplacer. Mhm. moom lay Wade xamutoon ni moom moo koy remplacer. dëgg la. xañ na su ko Ablaye Wade xamoon mën na am mu empêcher ko walla mu euh, dox digganteem ak loolu. Mhm. waaye yàlla daf ko nëbb Mm-hmm. mais moom it ki ko ki ko war a remplacer yàlla daf ko koy nëbbu. Mm-hmm. kim foog ne moom la sax xaj na du moom. dëgg la wala su dee moom la dara mënta dox digganteem ba li li yàlla nar a amal moom loolu dana am. ala mm-hmm. moo tax liñ ko doon ñaan liñ koy ñaan euh, ñun ñëpp mooy na am yërmande. ci képp koo xam ne rek. ab sénégalais nga mhm. dalee ko ci euh, ñi nga xam ne ñooy ay opposant am mhm. waaye dalee ko ci sénégal sénégalais yëpp nañu na yaram ñëpp mhm. na jàppale ñëpp bu mu fayee ko wante ku yàlla jox doole doole jooj doo ko jël def ko yar di ko dóoree na am yërmande ci mbindeef yi moom Ousmane Sonko it euh, li nit ñi foog Euh, euh, man dama ci am xalaat. Mm. xelaat bi ma ci am mooy ne Sonko génnam lu mën a ne la. Mm-hmm. mais nag du yomb. dëgg la. yomb gi mooy ne gouvernement bi. Mm-hmm. am na luñ ci laxas loo xam ne. Mm-hmm. loolu pour Sonko nangu ko. pour mën a génn loolu lu jafe lay doon. Mhm. Sonko fu mu toll nii may wax ak yow nii moo téye boppam ci kaso gi. Mhm. ndax am na yuñ ko bëgg. condition conditionné yi loo xam ne nanguwu ko. ndax mhm. dafa nekkoo xam ne na rek dafa am luy daw ci dereetam nag. ngor mooy ngor. ak jom ak jom lépp lu mu mos a wax rek. loolu lu gën lay doon. ba yàlla soppi waaye moom lépp lu mu wax rek lu gëm gëm da jàpp ni ay dil def ci am te dil yooyu accepté wu ko maanaam boo génnee doo fi toog boo génnee doo fi nangam condition yooyu kon ñi ngi jamono bii may wax ak yow ñi ngi koy conditionné mhm. lu wér waaye dafa bañ lépp dafa gàntal lépp mhm. Macky Sall li wax Macky Sall mooy na Macky Sall mhm. na ko bàyyi digganteem ak ay Sarr ñu. attewaat ko ñu leeral ko. ba noppi bàyyi ko mu bokk ci élection yi ba noppi ko pare bàyyi ko mu bokk ci élection yi. loolu noonu la leen tegal ñoom ñu ne ko loolu du mën a am. Mhm. li mën a am mooy nañ la bàyyi. Mhm. nga doo bokk wala indi la ay jafe-jafe. Mhm. waaw waaw. muy lu ama amaam solo shukran yaa alimul alaama Cheikh Bachir Niass wax dëgg yàlla ku dégg kàddu yi xam ne kaddu yi borom xam-xam la sëriñ bi kon. daf may nduru ni ñaan yàlla lu am la walla lu nekk la parce que ci événement yi nga fi lim ñaan yàlla feeñ na ci ba ñu xam ni feeñ na ci di wane ndëgërlaayu ak solos ñaan yàlla alhamdulilah euh, buur mhm. ñaan yàlla dafa mos a am mhm. te du mos a jóge ñaan yàlla dafa mos a wér mhm. ñaan yàlla dafay sax dara du ko fi jële incha allahu taala mm-hmm. buur mm-hmm. ñetti mbir soo ko gisee ci ñànkati yàlla wala soo ko gisee ci nit mm-hmm. óolu ko xamal ne kii ko jor óolu la su dee ab ñaankat yàlla la xamal ne kii ku wér la jot naa man nit mën naa jëf moom bul jàppal li may wax la ñetti mbir kum néew ci yow la ñëpp daw ci ñaan bi ci njëkk mooy xam-xam bu wér nit dafa war a am xam-xam ñaankat yàlla dafa war a am xam-xam sukkandiku pour ñaan yàlla mm-hmm. soo amul xam mënoo ñaan ndax doo xam yoon wi nga war a jaar pour ñaan mm-hmm. beneen bi ci des mooy farlu mm. boroom xam-xam dafa war la farlu ñaankat yàlla dafa war a farlu ci li muy def Mm-hmm. ndax farlu bi ngay def bi nga bi nga ciy wane moo lay yóbbu ci nga am la nga bëgg. Mm-hmm. ñetteel bi muy dëggu. alxaq dëggu. looy wax na nekk dëgg. looy jëf na nekk dëgg. Mm-hmm. loo man <clears throat> nga ne lii mën naa ko. loo mënut nga ne lii mënuma ko. <clears throat> soo xasee. buur ngeen baal ma. ba du ba engagé fi jàmbur ngir yàlla nga was waslu àq sa diggante ak moom sa diggante ak yàlla mm-hmm. Mm-hmm. sa diggante ak moom lam la jox xamoo nan la def ba am ko ba am ko pour jox la wallahi ba jox la ko wallahi am na ñoo xam ne suñ la waxoon fan la ñuy jaar pour am mm-hmm. ñaar dërëm ñetti dërëm ñeenti dërëm juróomi dërëm junni biñ la jox wala la suñ la ko joxee nga jëlaat ko boole kook la nga amee jox leen ko ba pare ñaanal leen kon kooku su la yàlla daf ne nga jël alalam mu néew mu bëri kooku war nga ko ñaanal yàlla war nga dëggu ci la ngay def. est-ce que ñaan yàlla mu nangu jafe na jafe na jafewul ndax ñaari problème yi laa gis nit ñi ci lañ ëpp problème benn bi mooy wàllu seet benn bi mooy wàllu noog nit ñi bëri na luñ koy solliciter mais souvent ñuy seet benn ligne la ñu am ku gàtt ki. ku njool ki ku lay liggéey liggéey sa digg ginnaaw bi day metti nangam nangam foofu la loolu léegi ñëpp xam nañ ko loolu est-ce que ak ceet la beneen bi nopp est-ce que niñ koy mbalee ci jàpp doomu aadama wala lëkkale ndax ñu nopp ñaar la nopp la ak noot ak wooj est-ce que tey yombee na noonu wala nit wooye feneen noonu bopp macha allah mhm. jërëjëf euh, buur wax nga lu am solo mhm. ci nopp mhm. nopp lu jafe la tas nit ba mu wuyu la bu wuyu la defal li nga bëgg mm-hmm. su dee nit dafay waxal yàlla rek mm-hmm. lu jafe ngi noonu waaye nag lu yomb la mm-hmm. li tax mu jafe ba pare yomb mooy ne doomu aadama ak ni mel am loo xam ne fasu ko yéene nga bëgg mu def ko te moom fasut yéene loolu kooku dafa am lu mu laaj. benn problème la. waaw mhm. loolu loolu loolu dafa am lu mu laaj. lim laaj mooy len xam-xam. Mhm. man su ma xoolee buur mi li may njëkk def ba mooy fexe ba xam buur mi ban genre nit la. mooy ci wàllu tabi'am. ci wàllu am nga xam. Mhm. nga xam kii ban genre la. su ko defee genre boobu nag mu doon. man su ma bëggee ci moom dara fan lay jaar pour am ko. yoon wi yoon wi nga war a jaar. Mm-hmm. gis nga li nopp buur. Mm-hmm. xañ na du mën naa ñàkk nopp ma dem ba mën naa ñàkk nopp ma sàmba. dëgg la mën nga koo def buur jàpp ko mën nga koo def ma dem ba doo ko jàpp ma def ko ma sàmba doo ko jàpp. Mm-hmm. ku ci nekk dafa am fooy jaar. ak pour man pour mën a koo jàpp pour mën a am li nga bëgg ci moom. li nga xam ne mooy tabiyaam soo ko xasee ba xam mhm. ci turam ngay liggéey nag li ngay liggéey ak turu yaayam ak turu papam su dee am nga ko kon loolu mënoo ko def te xamuloo ilmul adat waaw il faut nga xam mhm. moom turam mhm. lan la lay jox gis nga nopp bi gën bi nga xam ne du du ci mukk mooy nopp mos naa koo jàngale yàgg na mooy nopp bi nga xam ne da ngay fexe ba xam yow buur yaa hmm. bëgg Mariyam yow buur ñaata nga lan nga waaye lan nga nag bokkut ak ni ko sëriñ si di calculer hmm. déedéet boobu calculer buur ne buur lii lay lii lay jàpp hmm, turam lii la jàpp turam lii la jàpp déedéet du boobu du du du du lim boobu lim boobu dafa am ci beneen lim bu mu war a génnee bu mu war a génnaat bu war a génnaat ci lim boobu noonu. te loolu il faut nga xam am xam-xamu seet doog ko mën a xam. Mm-hmm. su ko defee nag ci biir seet nag ci ngay mën a mënee nopp parce que da nga seet ba xam nit ki pour mën koo nopp. ba xam li ko war a jàpp. pour xam li ko war a jàpp pour mën koo nopp. Mm-hmm. seet ñetti mbir rekk la. Mm-hmm. da war a génne nit lu mu bëgg xam. kumpaam kumpaam mhm. dafa am lu mu bëgg xam mhm. pour ñëw nga xamal ko ko mhm. kon su dee moom loolu la yéene su ñëwee war nga ko xamal loolu soo ko xamul rek soo ko xamalul rek des ngaa man seet sa ceet des na waaw ñaareel bi mooy ban mooy dafa am lu ko jaaxal mu bëgg ci solution mooy tax moo ko tax a ñëw di seetlu hmm. su ko defee nag war nga koo seetal ba jox solution boo xam ne su ko defee loolu daal di fare mm. bor mm-hmm. muy ñaareel bi ñetteel bi mooy xel ñaar sikki sàkk sikki sàkk mm-hmm. Mm-hmm. naa defam du ma bu ma def naa demam bëgg dugg ci mbir bëgg dugg ci mbir bëgg koo xool su ko defee ki ki lay xoolal day xool ba ne la lii nga bëgg dugg nii dugg ci walla lii bu ci dugg lii liikat nga bëgg xam mi ngi nii te fekk moom ki lay seetlul waxu la dara ci mbiram nag. Mm-hmm. li nga xam ne loolu la yéene rek yow mi koy seetal loolu nga ko war a wax. Mm-hmm. mi ngi noonu kon daal biru seet yàlla may nañu ci. duñu mm-hmm. seetal mukk kuñ gisul. ndax fi ñuy jaar pour seetal la pour gis pour pour gis say mbir kooku néew kenn xamu ko. ndax su boobaa dafa mel ni man maa bind ma maa yàlla mi leen bind. ba mën a am seetu mën a taxaw ku nekk ma xam fa nga yem. Mhm. waaye naa ne fa ma ca toll ak la ma ca man ak la ma cay liggéey ah mën naa am néew na ñoo xam ne ni xam nañ ko. Mhm. waaye nag am na sax ñoo xam ne ñu ngi leen koy xamal alhamdulilah ci sëriñ si. nga maa ngi wax neexaayu waxtaan wi tellement <laughs> mu may dépassé. ba maa ngi romb sama fukki minute ak juróom waaye sëñ bi damay damay jël benn tomb rek tëje ko. Mhm. sëñ noo def ak turu yàlla ismullahi al azam ak yan aajo yu tar. yàkkamti la ci Cheikh Bachir mën a mën a mën a faj ci tàng-tàng bi ah, waaw ismullahil azam mooy ismu asmaullahil xusna quatre vingt yàlla yi am beneen beneen fukkeel ne ci biir ñu nëbb ko moo mooy ismullahil azam mm-hmm. tur yàlla bi gën a màgg mm-hmm. boobu nag góor yàlla yi xam nañ ko dañ koo téye duul lu ñu wax kenn du ko wax. Mhm. boobu koy faj aajo ak kuy faj soxla fa ngay jaar pour faj soxlaam faj aajo. ak soxla si tartar. ci soxla si lu soxla si tartar lu mu métti métti soo ci mbir gis nga mbir bu di doon. Mhm. képp koo xam ni am na tur yàlla bu wér. Mhm. nga wax ko sa soxla soosu même soxla soosu su narutu na faju jàppal ma wax la tey nag xam-xam boo xam ne dara du ko dindi. Mm. am na ñoo xam ne waxuma nag ci laa bokk de. Mm. yàlla rek a xam. waaye am na ñoo xam ne ku leen dëkkmal ci soxla wallaahi la azim yàlla faj soxla boobu su yàlla nar a faj soxla bi doo leen dëkkmal ci soxla boobu dëkkmal kooku borom lijaaba la kooku borom lijaaba la te dafa xam tur yàlla dafa xam fan lay jaar pour man la ñaanal yàlla lenn su dee yow soxla boobu nar narta faju du ngeen doo àgg ca moom mm-hmm. doo ko gëm wala bala ngaa àgg ca moom waaye asubillahi ñu ne accidenté na wala nangam nangam waaye daal doo ko gis doo ko wax soxla si mm-hmm. am nañu yàlla may loolu benn benn benn bëriwuñ nag mm-hmm. benn benn benn benn yàlla nañ ci yàlla boole amin wa mu ngi noonu macha allah ku déglu kàddu yi xam ni boroom xam-xam la doomi soxna la nit ku yiw la nit ku baax la fajkatu ajo la ndax bokk na ci martabay ñaankatu yàlla bu ko man benn mooy wax dëgg ñaareel bi mooy am xam-xam ñetteel bi mooy lekk lu leew te yooyu yëpp suñu borom macha allah dimbali na ci Cheikh Mouhamadul Bachir kon sëriñ bi lan ngay tàggoo. maa ngi sant yàlla bu baax euh, di ñaanal képp kuy ab jullit. Mhm. ak képp kuy mbindeef rek. boo xam ne nii yaa ngi dund. Mhm. yàlla na yàlla may la wér. wér mooy bunt bi nga xam ne soo si jaarul doo àgg ca dara. Mhm. ca dara nag doo àgg ca dara. kon yàlla nañu yàlla may wér. amiin te yàlla nañu yàlla may gëm yàlla ak wóolu yàlla. amiin yàlla nañ gëm yàlla yàlla nañ wóolu yàlla. amiin nañ jub képp koo xam ne nii xam nañu rek yàlla na nekk ko jub. amiin ñu ngi ñaan yàlla loolu te ñu ngi ñaan yàlla yan na yàlla nangu suñu ñaan bi la rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim